yee wala boog salaam salaam sama mbokku internet yi waaw Ibrahima la ñu gën ko xam si Lamé Sarr waaw maa ngi nuyu waa Allo Dakar TV di leen si jiital bu baax di leen bëggee di leen jox seen wàccuwaay yaa ma gën a xam ak gaa yi may bëggee yëpp maa leen di nuyu bu baax yaa ma gën a nëw waaw di nuyu sama yaay booy ak sama papa maa leen di nuyu bu baax di leen ñaanal yàlla nañ fi yàgg tëwër lool waaw. waaw rab bi tamit lu waral ma dugg si. Euh, ba ma nekkee xale temps yi ma doon nekk tout le temps waaw yaa ma gën a noo Bril Fayfour rappeur Bril Fayfour waaw moom moo doon ñëw suñu gàlle moom da daan fréquenté suñu gàlle lu bari boobu gars dégguñu ko woon nii mais daan na tëgg ay ay lycée Thiaroye yi daan na tëgg moom ak sama tante bu ñuy wax maam say mbay moom mu ngi France waaw foofu laa gisee Bril lu muy woy mu neex ma Bril muy teg ay son moom ak sama tante mu neex ma loolu ma ne lii pour pourquoi man waru ma mënu ma see dugg comprendre ma ne pourquoi mënu ma see dugg compris moom lu mu kiyee te man sama baat may na ma ko waaw aar bi lu ma si gën a neex sama yaay lu mu si dugg ma gis ko moom mu siy def lu neex di bëggal gars yi ma ne kon sama yaay gars yi comme que nu muy bëggalee gars yi daal neex na daal man tamit foog ma dugg si ndax lii dafa neex ngay bégal gars yi ñu lay bégee waaw des fois sax gars yow yaa leen war a jooyloo mais des fois yow yaa jooy ndax ñu lay bégee xam nga waaw noonu la fa demee nag. da neex na ma daal neex na ma benn côté daal waaw neex na ma baax waaw ndax gars yi ñuy sama ñoom mooy Madeleine Jumel MT waaw Jumel MT waaw aar moom. waaw du ma wax amul lu ma si naqari waaw am na lu ma si naqari ndax des fois tamit nga dégg lu la neexul mais loolu yëpp daal moo tax ñu naan artiste warul gaaw a mer walul yooyu noonu artiste daal xol muñ la war a am waaw warul nekk daal ko kii quoi artiste da ngay bëgg kaf di ree waroo mu ëpp daal waaw foo ngay kaf di ree ak sa gars yi waaw nu noonu la fa demee yow mi artiste si boppam sax da ngaa war a gën a mën a bëggee comme ak sa gars yi yaa ngi waaw man moom sama idol Bril Fayfour la waaw Bril waaw ndax moom dafa yàgg ñëw suñu gàlle avant avant waaw ñu koy kii si aar bi yàgg naa ñëw suñu gàlle di ñu kii nii xam nga di nemmeeku xam nga di waxtaan ak ñun. di kiiw ak jàppale sama tànta bi pour ñu def ay son xam nga même ànd nañ sax ay concert xam nga ma ni biril moom ku ma ku ma neex la ko waa waaw maa ngi bëggee soppe yu baax ah képp ku ma ku ma bëgg di ma suivre maa leen di bëggee bu baax maa leen raw fii la ëppee di nuyu sama ménageur waaw Mamiko maa ngi koy nuyu bu baax waaw di nuyu waa DTV VIP Dream Team VIP di leen bëgge yaa ma gën a xam xam nga di nuyu sama gaay yi sama yeneen gaay yi waaw ku lim day juum waaw ñoom Ousseynou Papa Diop waaw gaay yi Seck euh, Souley waaw gaay yi maa leen di bëggee bu baax dégg abu waaw ku lim daal day juum quoi yaa ma gënoon noo ak waa ay AIC ndam li maa leen di bëggee bu baax ak waa Brada bi tamit. waaw ñooñu moom bokk nañ ci ñun quoi bokk nañ ci ñu njëkk a waaw maa leen di bëgg bu baax sama gars yi di leen wax tamit dig dee ci beneen émission allo Dakar yaa ma gën a noow bu leen bàyyi nag aloo dakaar ak ñoom ñoom yeneen émission yu ñuy indi yaa ma gën a xam waaw gaay yi bégg naa leen bu baax. man la Lamine Star fu ma jaar dinaa wayal waa Allo Dakar TV vous faites partie dans notre vie am ngeen man na di dimbali xale yu ci réew mi li neex na am ngeen talent yéen yaa leen ñu wettali Allo Dakar ca kaw am leen jàmm ak salaam ca kaw kanam allo Dakar ca kaw ca kanam merci beaucoup <laughs> waaw noonu <laughs> fa demee